woo Assane Thiaw Mon mooy porte discours bu chef de village du Refane ak chef de village yi yëpp yu ko wër Assane Thiaw professeur vous avez la parole. allô jaayante bi pare guñu képp ku am looy joxé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 daaw Daouda Thiaw mi nga xam ne mooy chef du village bu Faye Sindiane mu ngi di nuyu di leen ziar waaye tam di leen ndokkeel ci bés bu mag bi nga xam ne taxawal ngeen ko te nu xam ne ay ndaw ñoo génn xalaat bi waaye ndaw ñi doomu nekk mu ci ndax ay mag fekk si noonu leen ci di leen ci ñaanal am ci ak ñoom kaddu gi nu yëkkati nag ginnaaw bu ñu ziaree imaam mi nga xam ne mooy taawu. Eh, sëñ Daouda Thiaw alaaji moo Lamine Thiaw mu ngi nii toog moom moo war na jël kaddu waaye ci woyofam moo tax mu yëkkati kaddu gi daal di koy teg sunu loxo ñu ziar bu baax chef de village bi nga xam ne eh, bërëb bi ñoom mën nañ ne seq donte nag pàkk bi ci pàkku alaaji Daouda Thiaw la te ci jéeg village bi nga xam ne moo nekk suñu camañ muy village u Ngogo sëñ Ibou Diouf mu ngi bu baax waaye tam kii ci sunu ndijoor di ñañaar euh, mu ngi sar baax njóor Diouf mi nga xam ne mooy chef du bi waaye tam euh, Serigne Gueye mi nga xam ne mooy chef du village bu euh, Mbafay nu ngi koy nuyu di ko sar bu baax a baax kado yi nag mën naa gàtt ndax kadoy ñaan la rek ak kadoy nuyoo ak kadoy dalal waaye dalal bi nga xam ñu koy dal gan ñi ñu ngi ci jiital chez le préfet de Lambaye Cheikh Anta Dieng nga xam ne lépp loo xam ne mos nañu koo taxawal fii ba fu nekkee ba léegi ñëw na bokkeeg ak nun ci tàmbaliwaay bi ba nanuy jeexal te lépp itam mu am ci ak ay conseils yi nga xam ne mu jox wow waaye itam bi dalal jam itam xaadim sam mi nga xam ne moo yoroon kàddu gi sànq ndax li tax moom dafa boole boppam ci Touba Refane ndaje mënu am itam moom dina ci taxaw taxawaay yu mat sëkk waaye itam di ziar itam bu baax sëñ Maodo Mbacke mi nga xam ne moo ñaan te ku ne xam ne ne sagub dëkk la ndax jataay bu nu mës a taxawal Touba Refane ñëw na ñaan ba pare itam euh, lépp loo xamante ni mu koy xelal nit ñu baax ñi tam ci suuf mu ngi koy def di ñaan te man mii am na ma ci xam jar ay kilifa ci moom ba tey mu ñaanal leen teg leen ci aw yoon itam di leen soññaat bu baax kon sëñ Modou Mbacke yàlla na fi yàgg loo tax ak wér waaye di ziar gan ñi ñëpp ñi nga xam ne nag mënul naa ñàkk lim mooy ñi nga xam ne tey ñoo fi teew le ministre de la santé waaye ñu tàmbalee itam ndax ba itam ci sa wewu euh, tànk euh, madame Ngoone Ndiaye bi nga xam ne mooy ICP bu Refane nu ngi koy nuyu ko dalal jàmm ci jotaay bi waaye itam madame Ami Faye itam ICP bu Ndar nu koy jàmm ci jotaay bi itam waaye itam di dalal itam madame Ba mi nga xam ne moo jiite poste de santé bu réew ma ak sage-femme yi ay Fatou Fatou Loulou waaye ak madame nga xam ne eh, gan la ci dëkk bi nag sage-femme bu réew ma woo ñu ko la kon yii kaddu la nga xam ne moom la doon yëkkati ginnaaw bu mu dalalee kilifa di ñaan lii nu tàmbalee ko ak bismillahi rahmaani rahim wéyal ko ak alhamdulilahi rabbil alamin ndax am nu yaakaar ci kilifa yi ci suñu gannaaw sëñ Cheikh Diouf Ndié fu mu toog mu ngi ñaan waye tam eh, seigne Modou Mbacke seigne Abdou Mbacke fi tam mu ngi tollu fu mu tollu tam mu ngi ñaan kon xel dal na bu baax ay ndaw ko tàmbali won ay mag du ci kelife ñew di ñaan suñu baaxa baax kon lii katu la non mu yëkkati ko dagal ko ci mbolo mi di wax itam alaaji daawu taw ak njabotam ci kado bay taw barkelo na eh, ñetti tam li tax itam sañ ko fasal alquran def na wax na wa amma bi nixmati rabbika fa hadish wax ji ko wax ak soñ lañ suñu bopp rek nga xam ne eh, alxuraan dafa wax yonent bi ne xiiwal yi nga xam ne yàlla dafa koo defal da koy wax te lii xiiwal la asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu dégloo déedéet déglu waay déedéet déglu asalaamu aleykum